yéen a taal ay làmp am na yu gën a leer am na yoo xam ne dina gën a leer waaye li ngeen xam ci melo yéen su fekkoon làmp yi benn bu nekk xam na melo bu ngeen xam waaye benn barab moo leen di taal barab boobu de mooy fu nit yëngatoo ak lépp loo yëngatoo noppi ci jéem koy dab dana xoomal taxut a jege rasulullahi ñàkk taxut a sori rasulillahi sëriñam moom lim seere ci moom xam ne ñeent fukki ak juróom-benn kum tolloot nekk sa mars moo la gën a xam alxuraan moo la gën a jege rasulillahi waaye moo la gën a wéradi moo la gën a ñàkk nee na foofa ndam mënu fay ne xam ne ñeen fukki at ak juróom benn yoo xam ne kum tolloon moo la gën a wéradi moo la gën a ñàkk waaye moo la gën a jege rasulillahi moo la gën a wéradi sëriñ bi ne kon xaduna këtëg xon la dafay su yox yoxi xon sa booba jamono lay dox waaye mu dëgër këmm ba mu ñeen fukki at ak juróom benn ñu sanc dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam ba mu dem xeet tumuraanke gu ne na ko xeeti ñàkk gu ne yóbbaale na ko waaye noonu la dëkk bi de boo sàgganee mu leer de waaye leer na ne ku wax tey ne fukki junne juróom te na borom daaru juróom benn weer kenn du ko gëm kon lim ne moo gën a ñàkk waaye mën naa mu ñàkk ga mbégte gi rasulillahi nee na li muy wax fawut ko de dafa bëgg nit ñi góorgóorlu ci diina xam ne borom diina ji gëmmintuwut nelawut fàttewut kenn ku ne moo la gën a jege sa bu xol bi la ca nekk moom lay sàmm daaru salaam mu am fa fanweeri at ak benn daan leen toog ba jant bee waaj so ñu soog a julli takkusaan waaye lu ko def alaaji Souleymane Dieng alaaji Souley mu waaye alaaji Souley waxal nit ñi ne leen waxtu su jotatee ne noddu fi ngeen may fekk xaw ma bëccëg xaw ma guddi dara ta dara tàngoor bu tàngoor ñëwee ma xam ne bëccëg ci leen nekk bu sedd ñëwee ma xam ne guddi ñëw kon bu waxtu jotatee noddu leen nee na daan julli tàkkusaan néeg leen nodd te ñu war a nodd nodduñ te bala ñuy julli mu ñëw moom mu julli xaale moom soog a dem si jàkka ja waaye duxut weddi ko de lam ko wax moo tax sëriñ bi ne neen góorgóorlu ci diina may ak kenn du nekk may ak mbooloo te ku bëgg a sëriñ bëgg koy jege da nga ànd moom lu mu bëgg nga bëgg ko lu muy def nga jéem lu mu baax nga bokk la muy def nag nga jéem soo ko mën a soo ko mën a matal baax na sahabaay rasulillahi ba ay alquran waxee xaqa tuqaatihi dëgg dëgg ragal ragal leen ma ko fañ ko ne xamuñ kàttanam mu ne fa taqullaha mastuteetum kon ngeen ragal ma li ngeen xatoon sëriñ bi ne neen gëm yàlla neen dëggal waxe yonent yi dëggal téereb yàlla bi soo demee téereb yàlla bi atiixu allaha wa atiixu rasula wa ulil amri wattu leen topp waxi yàlla déglu leen topp leen ndigalal rasulillahi waaye wutu leen ñi ma fal soo wëttoo waxi buur da nga mucc ci aw xayam soo wëttoo waxi lawli yaawu da nga def àjjana waaye soo ne maa moom nga tooñ buur bu di bugal yàlla fa seetaan موسيلان جون بور كونون بور دو راي سيدو رسول الله واي كونغور فار كراك نغور فار سو فيكون بيم كو راي نخادي نكو كونون كراك يالا فار نغور كين دوف نيك بور دي بور مو راي سيدو رسول الله موي حسين بنت فاطمه بورو كو راي sëriñ bi ne wut seen wax ne leen ragal ne leen gën ragal yàlla gis na ci téere bi ne bépp boo xam ne yaa ngi koy ne bu deexee mu bala soo deexee bi jar na ragal mooy bi nga xam ne daf mu toroxal gëm yàlla ñu dëggal dekkal wax ngeen ko léegi wal bësu asraho min tarfin li si fi nga deexee ak fi ngay dekkee nekk la nga doon moo gën a gaaw xëf ak xippi nee na mooy liggéeyal nafs moom la nafs di liggéeyal nafs lu neex bànneex noflaay rekk la bëgg ruuxu li nga xam ne bu génnee demoo jële xan ak dem xalaaxira ruuxu lu set rek la bëgg te ñoom ñaar ñoo dajee ci yaram sëriñ bi ne kon bu ñu nafsu bi not bañ fàtte ruuxu fi nga deexee ñu di la sang di la suuli fekk na nga dekki jëm sa beneen ñaareelu jëmu jë dem sa bëre boobale nag mooy moom la ñuy laajee kii loo doon def faatoo bam faatoo xal yi fa toog ca bopp xabru ba ne ma déglu li muy wax malaaka yi ñëwal ak melo bi ngeen xamee dënnu nga xam ne bu bu dënnoo ñëpp gëmm tàngoor kum dal mu am màndar ñu def ko xomar bañ àggalee mu téye leen ne leen wan ma kan mooy wax borom wax leen ma lan mooy seen diina wax leen ma kan mooy seen ñu ne ko xomar bul mer dëgëral nga diina ci teew ak taxawal nga xàq yàlla gannaaw rasulillahi ñun ay jaam leen dañuy yónni si yow mu ne waaye mënuma di baax te waxu leen su fekkee wax ngeen ma ma baleen laaj leen ñaan su ngeen delloo si kileen ngeen ne gannaaw tey neen yërëm jullit bu ñuy seet ba xal na xamar jërëjëf jërëjëf xamar dëgëral na dinaal islam ci teew ak rasulullahi taxawal na xaq yàlla rasulullahi xettali na mi def yëpp yowmal xiyaam sëriñ bi ne leen jëm loolu nit rek nam na nga woon ak soo ko soo merut ni moom da ko jege sëriñ sëriñ bi ne sëriñ dañ koy def nawle waaye duñ ko def morom dañ koy def nawle nawle mooy lim bëgg nga bëgg lim bañ nga bañ lu muy def nga jéem waaye buñ ko def morom sëriñ soone romb na sëriñ dootoo jëriñu ci moom si sëriñ bi nii rekk la